jërëjëf euh, Ablaye Diop euh, jërë ngeen jëf internet yi ak auditeurs yi ah jërë ngeen jëf bon et heureuse année ah pour ñëpp rek yal yàlla defal ñëpp jàmm réew mi yal na fi yàlla def jàmm ju bare bare bari ñëpp am wér ami xéewal ci seen poos ak seen yaram ak fépp rek maa ngi kontaan ci ñëpp di baalo àq ñëpp di baal àq ñëpp année bi yëpp fàtt naa leen sonal naa leen lëjël naa leen fatt naa ñëpp surtout ñi nga xam ni ñoom lay liggéeyandool maa ngi leen di baalu te yéen wax ne li amoon 2022 incha allah du am 2023 2023 dinaa gën a bàyyi xel ci sama digganteeg yéen gën a sàmm sama digganteeg yéen may leen jàmm may leen salaam yéen itam ngeen delloo ma ko ñuy noos te li ñuy noos xam nañ daara baaxu ci ñu làq ko euh, àq baaxul euh, li lekk benn beñeek euh, benn kaasu kafe naan maa ngi noos yooyu moo may indi may wax bañ naan abaa ngi tooñ fekk dañ maa wax loo waaw di siyaar ñëpp di baalu àq ñëpp internautes yi ak auditeurs yi may tontanteel maa ngi leen di jéggu 2023 bi incha allah dinaa ko éviter waaw di kontaan ñëpp rek Ndiaye maa ngi lay fekkee bu baax a baax a baax delloo mbégte mi bu baax a baax hmm. maa ngi lay ñaanal jàmm fan bu gudd sutura wér ak xaalis bu baree baree baree bare ak mucc nag yàlla gën a yokk projet yi ni ma la ko ñaanalee ni laa koy ñaanalee suma rakk ji passe partout mais également ñaanal ko waa Sénégal eh, di leen baaluwaat àq di leen baal waxate di leen baal euh, beñe ba nag moo wàññeeku na ndax njëgu furiñ bee yokk ñaari beñe la woon li xam naa benn ci benn lay mujj waaye di sant rek yow ñi nga ñi nga amee la dëgg du ñu ngay liggéeyandoo eh. ñi ngay liggéeyal eh. waa Sénégal yi tax ngay liggéey ñooñu nga amel àq. maa ngi leen di jégalu ñëpp maa ngi jégalu ñëpp ah, maa ngi jégalu ñëpp. en tout cas kontaan naa trop. Ah. démb nag da ngeen maa pont maa fi nekkoon premier janvier. Mhm. wax na démb dëgg nag ne man daal. man daal ma ma ma assuré daal. Ndiaye nit ñi bi ñuy génn di baali da nga toog nii yow xam nga yéen Ndiaye yéen eh, kii ngeen yéen comme genre gouvernement ngeen yéen waaw da ngeen topp hiérarchie bi da ngeen ko respecté ak yooyu ñun Ndiaye ci animation la ne ñun ambiance. <laughs> ñun ambiance ba sonn dañuy noppalu ko. waaw mais. yéen tant que affaire yaa ngi jaar yoon ay journal day génn nit ñi di xëy liggéey yéen ci institution ngeen nekk waaw kay yéen ci institution ngeen nekk. ok ah, ñun ñun nag ñun nag Ndiaye ci boîte de nuit la liggéey. <laughs> en tout cas sant yàlla bu baax rek. bu mm-hmm. may faral di wax rek gis nga événement yu mel noonu. Mm-hmm. dafa am solo ci réew. Mm-hmm. ndax dana tax nit ñi fàtte coono yi. dana tax nit ñi féexal seen xol. abaa ndax xam nga stress bu bari ak mer mu bari day gàttal fan. lu lay dimbale nag ba nga mën a féexal sa xol. fàtte tuuti problème moom du fi jóg. Mm-hmm. mais nga fàtte tuuti yi nga nekk. même bu dee benn une heure de temps la. Mm-hmm. kilo koy defal war nga koo ñaanal sant ko gërëm ko. carrément Youssou Ndour yàlla na fi yàgg. amiin waaw ñu ngi am wér également. ñu ngi rabbal aalamiin amiin ci loo ne paas. ko wax yàlla nga fi yàgg Ndiaye. amiin jërëjëf waay maa ngi lay ziar yaa ngi am jàmm ñu ngi sant bu baax di nuyu auditeurs yi nuyu internet ñaanal ñëpp jàmm ñaanal leen 2023 bu neex ànd ak wal sutura yow sa waay mm-hmm. man nag ma Ndiaye dëkk leader la man <laughs> dama xam ne Ndiaye leader la abaa man damaa jóge fee di màjj màjj ak samay samay laxal ñëw fii Ndiaye dama dama nga nelaw yi. sinon doo fi liggéey loo xam madame yaakaar ne Ndiaye du liggéey madame nag man damaa bëgg rajo ma rajo bi te du ko def xalaas. Ndiaye mu xalaas képp. te boobu boobu fekk na téléphone bi ma fay ko bu yàgg. <laughs> boobu di Ndiaye bu ngeen baaxoon bay woote. fekk yàlla mooy li eh, kee di wax naan da ngaa baax rek boo ko doon xam da ngaa baax rek doo jot kenn de <laughs> Ndiaye lu partenaires yi wax. partenaires yi ñoom it ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen ñaanal atum jàmm di rafetlu ni ñu àndee confiance bi ñu ànd ak xalaas ci année bi yëpp muy partenaires yi fi nekk ak yi fi nekkoon ak yi waaj a ñëw en tout cas ñi ngi leen di remercier bu baax a baax bu ñu ko waxee xel dafay dem ci Optique Vision Plus Sénégal yi nga xamante ne ji kon li noppal réew mi ci wàllu lunette li leen di neex ci wàllu lunette ñoo leen ko indil Optique Vision Plus Sénégal ay lunettes yu yomb baax garantie ba noppi nag accessible loolu la indi ñi ngi nee nañ ma naa wax waa Sénégal ne promotion bi ñu doon def mm. euh, ci fête fin d'année yi danañ ko wéyal ba le 10 janvier ay réduction yu toll ci 10 20 30 ba 40 pour cent ci lunettes yi ci boutique Optivision Plus Sénégal ci accessoire lunettes yi établissement waa kër Serigne Touba frère borom gam bu yéeme bi borom cuuraayu vite fait aawo cuuraayu vite fait ñaareel cuuraayu vite fait ñetteel ñoom ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen wax ne waa Sénégal kontaan nañu ci gaam yu doy yu yéeme yu ñuy indil waa Sénégal mu di crème épilatoire vite fait crème mais pâte dentifrice lipo savon king briquet wala allume 555 11 11 77 806 15 19 ñu gërëm également beneen partenaire mu di bijouterie la Rotonde ak ni ñu neexalee fête fin d'année noonu la ñëwee ak yéen ci 2023 bi ay bijoux en or 21 wala 18 carats 24 euh, carats sax ndeke am na euh, am na ci bijouterie la Rotonde ay bijoux en diamant bijouterie la Rotonde Amadou rue Amadou Assane ci immeuble la Rotonde ci rez de bi seen numéro téléphone 77 639 60 60 33 842 65 95 77 348 96 96 bijouterie la euh, la Rotonde ba ci partenaire yu ñuy àndal ci xalaas bokk na ci Wave Wave mi nga xamante ne ji kon euh, dafa ñëw ci fête yi euh, yàgg gunge Sénégal at mi at mi ko weesook bi ci topp ak mhm. noonu la fas yéene doxee 2023 mu di plateforme transfert d'argent bii di Wave mhm. Wave nag mi ngi sàkku ci askan wi ñu moytu bu baax a baax njublan yi nga xam ne dañuy profité ci fête yi ngir di leen nax ci naka nee na seen code secret bu leen ko jox kenn bu leen nit woo tamit di leen wax ne service client bu Wave la nee na ñoom ci deux cent six cent rek la ñuy woote te duñ la laaj mu koy information yu jëm ci sa compte lu ci mel ne ay sa euh, code beeg yooyu mm-hmm. nee na également ci Wave li muy digal sénégalais yi utiliser Wave mooy nañuy moytu code secret yi nga xam ne dafay neex a jàppo mm-hmm. zéro zéro zéro cinq cinq cinq onze onze wala un deux trois quatre yooyu nañ koy moytu wala nga jël sa année de naissance di ko def sa code secret. Mhm. Wave mi ngi ñaanal ay partenaire am ay client ak ay agent am li nga xamante ne ji moo di atum deux mille 2023 atum jàmm ak euh, salaam. Miwan di téléphone bi nga xamante ne ji marque téléphone bu yéeme Android foire bi moom la ñuy waxtaanee stand Miwan boo fa demee fees dell lay def ci période foire bi ndax euh, gaamu téléphone yu baax te garanti ñu indi ci également ay tablettes Miwan garanti leen ko 12 mois ak service après vente ci njëg yu yomb Miwan disponible ci jaaykatu téléphone yëpp ma jeexalee Aba ak partenaire bi nga xamante ne ji kon moom it euh, kenn moom muy comptoir commercial de plomberie du Sénégal. ay jàmbaar dëgg fa nekk. Ah, ñëwaat ñëwaat nañu ci 2023 waaw waaw gërëm bu baax a baax eh, Ibrahima Kane ak ñi mu àndal ci liggéey bi muy agent yi nekk ci eh, CCPS rue Valmy angle Ngalandou Diouf yi nekk ci rue Floris angle Grasland rue Tolbiac angle Faidherbe comptoir commercial de plomberie du Sénégal 33 821 14 80 77 517 98 29 77 401 55 69 wala www.ccps.sn www.ccps.sn nga industriel di particulier particulier euh, soxla moto pompe moto pomp yi gën gën a garanti mën ci li nga li nga bëgg boo demee ci CCPS di nga ko fa fekk mm. ay tuyaux évacuation anti incendie ay tuyaux irrigation ngir ñi yor ay tool euh, wala ñi dëkk ci étage bëgg ndox mi di yéeg niveau bu mu mën di doon mm. bu ngeen demee ci magasin yu CCPS yi seen xel seen xol dina sedd showroom bu mag bi nag mi ngi ci VDN bi ci alignement c'est Lazare de Béthanie c'est Lazare de Béthanie am na solo en tout cas am na solo euh, di kontaan ci partenaires yi di ñaanal euh, yàlla année bi nga xam ne moom la ñu somb yàlla na nekk année xeewal pour ñoom ñëpp ak auditeurs yeeg internautes yi mais Ndiaye dafa am lu am. ci mm. bi passé. mooy mm-hmm. grand bi li tere Mamadou Mouhamed Ndiaye mu ñëw. Mm. moo tere yeneen sénégalais yu mel ni ñoom mu parce que xam nañ ni le lendemain. Mm-hmm. dañuy xëy dem liggéey. Mm, et que metti woon nañu bari loolu. effectivement xalaat ni que ñi waroon ñëw ñëpp bu ñu ñëw duñu xaj fii. Mm-hmm. léegi faaw ñu tëggaat ko samdi bi pour ñi ne woon mënuñu ñëw dimanche bi ndax lundi dañuy xëy samedi ñu mën a ñëw te ni mu mel fii ni mu meloon nii nii nii nii Ndiaye. Hmm. samedi dama sama sama samedi man dama gën a tiit. déedéet ak ak ñi ñëwoon yore ticket mun ñoo dugg. non yomb naa yomb naa réglé ñi demoon. Hmm. nañu am ngorok toog ci àdduna. lan nga <laughs> yuusu def ñaar yuusu yuusu génne woon. sans son. pour way sans bi temps bi xajul. mu woy cinquante yi mu des yeneen cinquante yi léegi yow ñu fekkee cinquante yi bëgg a commencé cinquante duñu yegg yeneen cinquante yi déedéet àdduna war a demee noonu àdduna mi demee bàyyi sa morom moos li demul sax na seetaan nañ ko dund nañ ko ak ñun donc buñ na leen ñëw nañ ànd demaat <laughs> <laughs> lu doy waar la lay wax ni samedi <laughs> ba pare samedi amul trente mille dix mille la ak vingt mille Ndiaye te Youssou day teel a commencé teel koo woy samedi ñu jëmale dimanche kenn mës a gis lu mel ni nañ jëm xa ci xalaas gu njëkk gi yow. Hmm? passeport <laughs> moo ko moo tin xanaa ñoom ñoo yemaleet cuuraay yi ci netteel. ba fan la war a yem. ah déet ñaata jabar la nit am doxatak bu ñeent Ndiaye wax na ba ñett taxaw. nit ñi est-ce que ba tey ñu. liyaar naa ko ne ko nii. ba tey est-ce que ñu takk ba ñeent. bien sûr. Hmm. ah. fan yii ñaar rek laay dégg ñu yem Ah, am ñu droit waaye en parlant de ñaar wala dañ jëm ci xalaas bi. nekk deux mille. deux mille vingt trois ah, dañ ci war a yokk troisième. atum atum ñetteel yi la. 2023 <laughs> atum ñetteeli la. je parle pas. ayca Ndiaye Express yaakaar naa. démb nga ne Youssou Ndour day dellu musée civilisation. maa la wax li samedi bii di ñëw samedi bii. waaw. ñi baalul woon danoo bari. ñaar ñi demul woon ñoo bari parce que lundi bi dañ doon xëy liggéey. la ma daloon ci arena ji de fi mu ne dafa tuuf kii sama xel bi torop torop. non non fii nag moom. Hmm? Euh, organisation bi teel a dem teel a dugg beeg nit ñi ñoo bari woon moo tax ñu rang hmm, noonu. Hmm. et eh puis accessible na waaw fii dafa waaw fii moom dafa macha allah. accessible na dama wax ni ñi musul woon dem Bercy yëpp nañu filmer fii snap ko xam ni ñu ngi bi comme Bercy ñu ko defaree rek ñu ko oh c'était excellent c'était extraordinaire xanaa ma bokk délégation super étoile bi loolu de may tax a dem. <laughs> wala nga bokk délégation Aba rek yaa pourquoi doo doo doo def kii comme comme Aba. comme ngeen bokk seen biir ñaar. ma taxaw ci seen waaw waaw. taxaw ci seen ba li muy wax moom. waaw. man mooy Youssou Ndour boo ko waxee ci seen fi jaay. dëgg la déet ku nekk sa métier. <laughs> yor ko rek téye ko di ko wax jaay. ku nekk sa métier gis nga doyen Abdoulaye Diaw. waaw bañ ne ko kaay journal xam nga lu mu leen tontu. Eh. suñ ma déggee dañ naan kuy football. dëgg la de dëgg la de. <laughs> nee na bu toogee def journal buñ ko déggee dañ naan kuy football. dëgg la de <laughs> dëgg loolu lañ xam ku nekk ak sa métier xalaas express. waaw. Euh, brigade de recherche bu Kër masar waaw defati nañu lu am solo. mooy ci major. waaw waaw fa nag sante ko gendarmerie nationale bi yëpp. Mhm. police nationale bi yëpp. Mhm. Euh, force de défense et de sécurité yëpp. Mhm. dafa am benn waay bu ñuy wax Moussa Diop. Mhm. Moussa la tudd sant Diop. waaw maanaam Diop la sant. waaw jubba ma ne Diop la sant jóob jubba waaw jubba Moussa Diop mhm. mbokki ndey Ablaye Diop la xam nga nu mu doon def. Mhm. day ñëw loué oto dem tay la ko kenn <laughs> demaat loué oto dem tay la ko kenn jàpp nañ ko keroog àjjuma. ba war koo defeere tey jii. tribunal bu Pikine. Mhm. fekk nañu ci moom juróom-benni oto. Mhm. yoo xam ne bu ci nekk da koo luwe. Mhm. di ko tayal képp koo xamante ne ji moom waa jooju di musaa jóob ñëwoon na ci ñëw luwe sa oto nga am ca lu la naqari. xamal ne brigade de recherche bu Kër Massar jàpp nañ ko nga dem lijjanti sa problème ak moom ci wàllu yoon. li nga wax di Ndiaye Moussa mii jaar na fi. maa ngi fàttali ko. fii am na beneen njóobeen bu fi jaaroon na bu ñuy wax Ousmane mooy ki doon dem di jël. ay faux chèque di ko joxe ak di luy ay ay hôtel ci Mbour ba ñu jàppoon ko mbuur yaa ngi fàttaliku descente ba ci Mbour mm-hmm. xam nga tëjoon nañ ko fi ciment bu mu génn mm-hmm. bi léegi nee na ab Modou la exact ñi ngi ma feex benn information bu moom laa bëggoon a xëy na dinañ wax Ndeye Mati mu toppal ñu ko mm-hmm. mais dafa am ay nit su ma jumul juróom-benn lañu waaw yu ñu tëj ca kaso bu mbuur def nañ fa deux ans liñ leen di toppee mooy dañoo sàcc tonu ciment tonu ciment waaw benn tonne benn tonne deux ans li ma jaaxal mooy tonne ciment nga tëdd deux ans. Mhm. ñi sàcc kër moom nu mën a def. benn tonne ciment nga tëdd ci deux ans. Mhm. ñi sàcc kër wala ñi teg loxo ci këru jàmbur. Mhm. xam ne ciment nga ca feera nga ca béton fa suuf <laughs> fa. ak ndox ma peinture ca karoon ca yaa nga ca ñooñu ñoom lu ñu war a tëdd mais deux ans ci tonne ciment. ñooñu benn tonne lañ sàcc. loolu lañ wax. léegi ñun affaire corona bi affaire xaalis milliards yooyu ñu ci wax ñooñu. ah waaw ah, waaw léegi. yàlla baax na dañu avancé rek ci xalaas bi kon. Ndeye Mati dina ko topp. benn tool parce que ñoom dañoo dañuy waajal grève de la faim aussi. kon baax nañ dem man damay ñibbi man damay dellu man damay dellu ca Mali. zant ba laa yow kii no stress. gis nga. président bon comme président la xaw ma sax mooy le capitaine Traoré la bi jël Burkina. waaw dafa def benn déclaration mu ne ñi nga xamante ne ji justice da leen a ci réew ma. waaw ndax dañoo jël alalu réew ma. 48 mhm. heures la leen may pour ñu génne ko. ñu génne xaalisu réew mi. 48 heures la leen ñu génne ko ci 24 heures waa ji dajale na 211 milliards. <laughs> ñaari fan <laughs> ci 24 heures moom 48 heures la mais ci 24 heures capitaine Ibrahima Traoré dajale na 211 milliards. ak ay oto v yoo xam ne. Eh. su ma jumul 19 la xaw ma 17. Eh. mais Ndiaye ñooñu jaaxaanuñu. xam nga li eh. problème bi. Hmm. ñooñu du ñu ay président classique. du ñu ay président classique ñooñu ay. ay ñooñu jaaxaan ay militaire ñooñu bu ñu waxee ba noppi. <laughs> exécution. ñu doxal lan yow euh, war na mat mois. Mhm. wala mois quinze jours exactement. ñu jàllawoon fi benn xalaas benn xale bu amoon trois ans dëkkoon diggante Tivaouane ak Pire mhm. te ñu fekkoon mu dugg ca teen ba mhm. bañ naan dañ ko faa dugal ak yooyu ndax xalam mënu faa dugal boppam effectivement njaay ci même kër gi rayaat nañ fa benn xale boo xam te daanaka ci ñeenti at la toll kër gi loolu xewoon waaw ñaari xale yi parce que benn xale bi maam ji dañ ko jox yaayam mu ngi Thiès papaam mi ngi Dakar di liggéey papa sax moo ñëwoon ci xalaas bi xale bii ñu fa dugaat encore maire bi nga xam ne maamu xale bële la mhm. bàjjan la ci xale bii aussi mhm. faat nañ ko moom tamit doy na waar di trop foofu ay xale rek lañ fay rey benn kër espace su un mois fu enquête ba toll ci bu njëkk ba bii tamit duñ ci ko ba nii vendredi la bii xew ñu ngi ciy déglu oustaz bi nga xam ne moo doon jàngal xale bu mujj bi waaw parce que moom dèjà moom oustaz bi premier xale ba ñu rayoon teen ba ñu ko dugaloon moom mooy yoroon responsabilité bi mhm. deuxième bii nii xale bi dafa jàngi aussi wàcc une heure temps après ñu ñëw fekk ñu jam ko waaw moom sax woowoon nañ ko police yooyu enquête ak yooyu noonu mm-hmm. waaw. nañ déglu déglu. yàlla dogal na xew-xew mu njëkk ba fekkuma woon fii damaa jàngale baa ci dem xale bi dafa réeroon daa mel ni ku réeroon moom di ko seet bi mu koy seet nag dafay njortu ni am na ku ko làq pour euh, na di ko kii xam nga ca talaata la la réer ba lañ ñëw ci man mu yebal fa benn jigéen ni naa ko bindal alam nasara ndax ba mu ko ma laaj ko ki nga xam ne moom ma doon bindaloo alam nasara ma ni ko waa lan la mu ni benn sëtam moo réer biñ toogee ba ci kanam mu bindal ko jox ay xale pour ñu yóbbul ko fa ñëwuma may laajte ma laajte la ndax feeñ na ñun feeñu ba jékk rek am na ñoo xam dañ doon roose ci benn tool teen bañ doon roose doon dafa def seen i récolte teen ba ci sama sama loxo la nekk ak bi xale bi papa ji nekk Dakar yaakaar naa yaay ji nekk Thiès Thiès la yaay ji nekk dañ joxoon ko maam ji dañ joxoon ko maam ji foofu ci kër ga fa mu xewee kii ki mujj gaañoon yi bàjjen ma mm. dencaguñ ko sax gaa ngi def seen kii yooyu waaw léegi kooku moo tudd xaadi seen Lamine Dia ci sama daara ji la doon jànge bis boobu sax ndaru ma woon a jàngale ndax àjjuma la waaye dama amoon xew Ndakaaru ma ni kon naa jàngale àjjuma xam nga mu remplacer di samedi bi ak dimanche bi jàng na fi ba ay cinq heures et demi daal mosul di jógee ci daara ji daal dem seen kër man daal biñ toogee lu toll ci waxtu daal benn xale bu toogoon ci man fii génn ni ma cànd am na lu fa xew waaye taxul ma jóg de taxul ma jóg ma toog rek ba ci kanam beneen kilifa daal di may woowaat téléphoné waat ah li fi xewoon xewaat na fi xale boobu ñoo xadi seet moom lañ fekk ñu jëm ko am fuñ ko teg bañ jëmee ba timis passé gannaaw ci man la doon jànge te ak dëkkandoo la ma jóg dem pour masawu leen ci xew-xew bi ci guddi gi samp pope ñëw na ba yóbbu ko bi mu ko yóbboo dégg naa dugal nañ ko sax bolog waaye ci guddi gi la la la noppalu ci ëllëg sa ma war a xëy dem Dakar ma ne déedéet du ma dem ndax ginnaaw xew-xew awoon na ci dëkk ba naa dem ca daala ja ma toog ci daala ji ba ci yàgg ci chef du village bi woo ma ma ñëw mu ni ma léegi maa ngi yow yëpp gars yi nee na dañuy dem pour police ma ni ko waaw maa ngi ñëw ñu dem waaye dama leen ndax man du ma dugg auto police ah dañuy jël beneen oto ma dugg ci waaye du ma dugg auto police hmm. ndax li aju ci man dafa bëri ndax duñ la séenee ci auto police ba nit ñi duñ xam li xew ca mbir mi man ma suma responsabilité génnoon na ci ak dëkkandoo ak ak mbokk rek moo tax may dem ma daal di dem ñu def seen enquête laaj ma ma wax leen la ma ci xam ak la ma ci kii daal di bàyyi waaw xale bi soob def naa jotaguñ ci ba tey ñu ngi ci seen i affaire daal waaw ñu ngi dëkk kër yàq ba yàq ba bàjjanam la xale ba njëkk bàjjan la ki ñu mujjee rey waaw bàjjan la ki ñu mujjee rey la kañ njëkkoon rey sëtam la ndax doomamu ko jur waaw loolu daal laa ci am kii ñu mujjee rey di moom ci ay ñaata la war a toll. am naa ni war na am ñaan ci juróom ci juróom la jàng sa daal. at yi daal bëriwul xale bu ndaw la. donc ñoom ñaar ay xale lañu nekk ci benn kër. ñoom ñaar ñëpp ay xale lañu. espace su un mois daanaka. wala un mois demi ndax euh, boobaa ka nga xam ni bis ba nga xam ni demoon naa ca. bis yi ñu koy yëgal man. dëj bi ma demoon quarante jours yi passé na ci ginnaaw. lii dafa mel ni lu bees la ci seen diwaan boobu noonu. waaw lii lu bees la mos fi ko fee benn mhm. dëkk laa ko déggoon ca ginnaaw. waaw xam na yàlla xam daal du ma mën a euh, wax ndax amu ci naan la kenn kenn la ak yooyu ndax leeru ma xam nga. te te nit du wax lu ko leeru waaye mosul am ci dëkk bi mhm. tund wi sax loolu dafay bëriwul. waaw jëf ju ñaaw jooju am euh, ci tund bi mhm. bëriwul te ñooñu tamit ay nit ñu baax. dégg nga kii Aba yaa ngi dégg euh, oustaz bi mi ngi wax ci ver la fin mu naan. mën naa ko ndax li mës bu yà bëri na fi mu ne amoon na fi ay jamono xam nga lan lay wax yaa ngi fàttaliku histoire bi xewoon foofu ci boori Tiwaawan yooyu noonu te am benn waay bu jëloon keesu avec boo xam ne benn soxna magam moo ko doon yore waa ji sàcc ko xale bu jigéen xam ko na woon ko porter plainte waa ji dab ko ca àll ba fekk mi ngi boot doomam mu ray ko rey doom ja ñu koy fàttaliku suul sànni ko ca teen ba bi ñu demee ba histoire bi commencé jug papaay waa ji xam ni li rey ndaw si loxo doomam jugu ci ba noonu ko dénoncé mu topp papa ba ca àll ba rey papa ji suul papa ci même même même lieu bi maanaam fa mu reyee woon ndaw si fa la reyee papa ji meurtre en série yooyu quoi. Mm-hmm. donc moo tax mu waan xewoon na fii ci côté yii nii quoi. ñu koy fàttali lii tamit ñëwaat encore. mais am na ku ma gis mu bind message nee na ñoom ñaari xale ñoo bokk ndey ak baay. non non non non kenn ki xale bi euh, mère bi maam la ci moom. Mhm. kenn ki bàjjan la ci moom. si yàlla bàjjan la ci moom. bala ngay dem feneen. waaw fam suñu benn euh, jigéen. Mhm. Euh, nee na dafa réerle benn pochette boo xam ne. Mhm. carte nationale d'identité ci turu ay Lo. Aïssatou Lo carte bancaire ak carte GAB BHS carte professionnelle enseignant arab ak euh, carte free monétaire monétaire ak benn carte vaccination Johnson and Johnson. Hmm. ci yoonu amoo siis gàddaay foofu la ko réeral. ok da ko fàtte ci oto soit clando wala taxi daal nañ ko dimbale. ku ko ci gisee mu woo ñu ci 77. 150 17 17. waaw wala 33 849 16 40. waaam léegi am na tam Ndiaye benn benn xalaat bi fu jàlloon benn cambriolage bu amoon mbuur so soman hmm. dañu fekkoon ndaw si ci biir néegam ak jëkkëram sàcc bagage ba sàcc oto ba yóbbu. Mm-hmm. gars yi bu ñu gisee oto ñu gaare ko fenn un mois de mois dañ koy signalé sàcc oto ba ñu sàccoon. Mm-hmm. dañ koo dawal ba ci boori almeer Yoff yi gaare ko fa. Mm-hmm. nekkate li ndaw si di wër xalaas geeg internet bi yëpp oto baa ngi foofu gaare ci côté benn waaye bu yore benn lavage waa ji moo dem ba xam ne lii nii jaadootul benn xale ñoo di foo ci oto bi ba dugg ci mu gis caabi ci oto bi. caabi oto bi ci biir oto bi waaw. mu tijji boîte à gants bi gis fa papier yeeg carte grise yeeg yooyu noonu waaye daal def na ay affaire am ba gis fa ay facture ak yooyu mu woote ci numéro yi ba jot ndaw si. Hmm. ndaw si nag nee li ko choqué nag mooy oto bi signalé nañ ko ci police ak gendarmerie yëpp. Hmm. mais moom jëlee na ko Dakar oto bi ba su ma romb police ak gendarmerie yëpp te kenn interpellé wu ko. ah mais est-ce que yéexu ko signalé. waaw yéex xam naa loolu la même moment. moment bi mu ñëwee fii de bi ñëwee fii boobu signalé nañ ko. waaw ah, xam nga bi ñu ko sàccee bi mu ñëwee fii lu mu bon bon def na 24 heures. waaw ah, donc diggante bi lu ne xaj na ci. waaw man kay na sant yàlla ba mu jotaatee otoom rek j'espère que jot na ko ci état bu baax. ah waaw état bu baax waaw état bu baax. na sant yàlla. baax na baax na. fu ñu dem. Ndiaye. Mhm. waa ji dafa am rab bu jigéen. jabaram. Hmm. am rab bu góor. eh eh eh eh eh eh. eh. Mhm. c'est la guerre des rab. waaw kay <laughs> merci léegi nag guerre des rab boobu moo waral nag. waaj daanaka deux ans ngi nii moo jabaram du ñu laale du ñu laale maanaam. dañoo xuloo duñ seq dara déedéet xuloo wuñu mais du ñu bëre du ñu booñaa baal. day quoi ah sequñu ay te nga bañ a yàq combat bi. dama laa wax ñu booy li Ndiaye wax nga dégg ko. combat bi passé na dimanche la mais sequñu kay moom la Ndiaye wax sànq la ko wax. dégg naa dégg naa démb ci TFM yaayu Boy Niang mu wax wax ju rafet. waaw nee na ni ma juree booy Niang noonu laa juree Balla Gaye ba ñaanal ko teg ci. Balla Gaye Balla Gaye tamit nee na yaay boo ñaax da koo bëgg xaritam la. nga yooyu dafay jar di siiwal. Mm-hmm. xam nga mbër moom loo ko bëgg bëgg mënoo ko gën a bëgg ndayam. Mm-hmm. comme yaay Boy Niang moo tax wax loolu ci Balla Gaye. Mm-hmm. kuy supporter Balla Gaye wala kuy supporter booy Niang. war a am raison garder. tigi maire bi wax na lu rafet. mais mais Boy Niang daan na Balla Gaye. bi tam bu ñu ci mënee dimbali man liw naa de dégg nga Ndiaye. mook jabaram deux ans. xam ni problème bi. waaj ji bu soxlaa soxna si rek soxna si. rab yi rab yu rab yu dugg. léegi waa nag moom su comme soxna boo xam te mu egg day fooyee boo su paree ndaw si day fanaanee jooy ba bët set. waa déet sëy boobu moom garaaw la fu ñu ko takkee. ah si ci réew mi Ndiaye sëy fi am rab yi ci réew mi lañ ko takkee di fa lañ koy takkee feneen. de man de moom xalaas yi nga xam ne moo njëkk. ci ba ci mois de janvier bi waaw foog man dinaa ci participer damay toog rek di leen déglu nga parce que moom lañ ma bindal ci commentaire yi awaa <laughs> teg di déglu balaa nga mais kaala de ah ñu ne ma Aba bul participer bul yàq classe bi donc su ma waxee dañuy yaakaar ni damay foowee xalaas gi fekk ne man ci xalaas gi laa nekk ku ci nekk ak fi nga toll ci xalaas <laughs> effectivement ñi dañuy yéeg ñi di wàcc <laughs> léegi bu la neexee dañuy déglu par nga doog ah, ma ko respect dugg sama quatrième cinquième année même yàgg na maa dal avant ëpp na sax am naa soxna nag am naa ñaari doom mu nekk loo xamante ne nii li may dund la nëbb naa ko nëbb mënatuma ko nëbb il y a de cela euh, deux ans même li may dund nag maanaam sama diggante sama soxna man leer na ma ne bëgg naa ko te moom it leer na ma ne bëgg na ma am ma si benn xalaat am ma si benn xel ñaar moom si boppam day waa day dem ba jaxle ma xam est-ce que man suñu wërsëg ànd na wala àndul ma ne ko tax nga loolu xam ne kat loo dugg rek mu yaa ko wala loo yaakaar mu yàqu man ba ma bëggee defal dara sax ba ma ko waxee wala ma ma ma sentir ne bëgg maa defal dara sax amaana dootoo ko defati sama soxna nag day tëdd sax ma soxla ba ma soxla ko day mel daam loolu ne lu koy loo su benee nag ba pare ma daal di sumeeku jàpp sama kanam bi ko fooye ba ma yëg sama bopp fu ma yëgee sama bopp ak fu mu di jooy di jooy xam naa ne carrément nekkul sa gom waaw daf may xeetal may sitaal ay prono te chargé prono foo ma ko seetaanee foofu laay yéegee sama bopp foofu laay fooyee sama bopp béyee sama bopp di ko def ay yoon yoon yoon yoon des sax dama xiital ma nekk si wàllu liggéey sax sama nekk si mun naa dugg si duus def ko mun naa dugg moo xam fanaan ma amee garab sax pour laal ko sax garab googu noonu amaana peut-être mën naa ko bañ a lu lu siiw si man yàqu lu ma bëgg a def su ma ko su ko keneen xamee mu yàqu lépp lépp lépp maanaam daal si gàttal man daal dama am tawat bëgg nga jàppale ma si man nag maay mag sama wàllu kër maay sama tawa papa nag wax na ma man mel noonu ne ma mag sama soxna yëpp ku si nekk dara am man ma am bu jigéen bi moom ma am bu góor bi waaw ma am bu góor man ma am bu jigéen bi moom am bu góor bi wax nañ ma lu mel noonu moom boo ko waxee mel noonu day mel ni xol bi génnee gëmul loolu wax naa ba sonn xaw ma nag bi moo ko def loolu xaw ma kese dégg nga de Aba. problème problème la de. yéen nag gars yi gars yi gars yi yi di li si xaar nag yenn saa yi ñoom xanaa li si xaar du gis ay rab yooyu comme nga takk jabar ñu la koy du gis ay ay rab ak ay yooyu quoi ay faru rab. ah <laughs> léeg-léeg nga dégg ñu ne dafa am lu mu àndal de lu ci nekk. ah mais ñoom xalaat biñ ci am nii. Hmm. ñoom ñaar ñi seen sëy seen diggante léegi ñoom loolu la ñu xalaat dañuy continuer wala. en tout cas ni ñu koy wax dee sax. courant phase ak phase ñoo ànd wala phase ak neutre. yaa ngi ci PC yi xaw ma kii. ah bu dee ci prise la daal. <laughs> prise bu fekkee ci prise bi. waaw prise la ak moyen. Ah, bu dee moyen bi mooy am pax. Euh, prise bi mooy mooy li nga jël roof ko ci moyen bi bu dee ci affaire prise la ak yooyu mais bu dee ci courant la moom xaw ma yow yooyu mais daal bu dee prise la. Hmm. Euh, moyen bi mooy am mooy am pax yi. Hmm. <laughs> xam nga moo tax man de fii naqari naa waxtaanee réew mu naqari waxee leen ne. waaw mais man de. <laughs> bu ñuy dem di jënd ay prise dañ naan la bu góor bu jigéen. waaw. Ah, am na dëgg la. daan man de bu dee mosu bu fekkee lii de kenn mosu koo dégg nee ma abaa kenn mosu bu dee nag mos dégg prise bu góor bu jigéen ñu wax ma. bu am na mais Ndiaye da nga naqaree expliqué. ah man maa ngi lay wax nga ni xam nii di ma xool. que damay xaar nga yegg ci multiprise. <laughs> maal ak eh, femelle dañ koy wax ci dañ koy wax ci prise. Hmm. bii maal la bi bi femelle bi mooy femelle. waaw dañ koy wax ci <laughs> ah, am na donc <laughs> bu ngeen diggoo foofu <laughs> li ma li ma li ma ci xam daal mooy Ndiaye. Ndiaye xamoo xamoo ndax luñ koy conseillé la xamoo ndax luñ koy fajal la. ndax moom nee na bëgg na soxnaam soxnaam bëgg na ko. ndeysaan te nag genre mel noonu. waaw couple yi muy jox. Hmm. dañuy bëggante. dañuy bëggante dañuy bëggante mais tout le temps dafa ab lu ci nekk loo xamante ne jii hmm. pour obstacle boo xam ne pour nga pour nga jàll ko day day jafe. waaye nag yàlla sunu borom noonu lay noonu lay nattoob jaamam. Hmm. ñun liñ ci mën rek mooy conseiller ko. Hmm. conseiller booy nañu wéy di ñaanlu. yàlla du boole lu war a ànd. kee mën na am rab kii am rab mais bu ñu warul woon a ànd yàlla du leen boole. comme yàlla boole na leen nag li des ñoom ñoo ko mën a mottali seen bopp. heureusement ba kenn ku nekk xamee li la dal. xam nga foofu doone mbëggee la fa amul. Hmm. doone dañ leen a forcer sëy bi. doone respect amatu fa. Hmm. mais dafa am lu ñu àndal te li ñu àndal tey ku ko weddi rek dalaa dalul. waaw billaay la. li ñu mën nag mooy nañ ñaan lu ji. njaay te gën a bu couple yi a am rab. Hmm. mooy couple yi am mariage forcé wala ay mariage intérêt. rab bi ñëw tàqal leen foofu. te rab du ñëw foofu. déedéet foofu rab yoonam du ci ne. day bàyyi non non day mel ne rab bu am rab. waaw ah, rab du ko fa te foofu rab bu soxla mënoon na faa ñëw. ba bi la mais mais xoola couple yi ñaar ñu bëggante ànd doxaanante ba sëy ñu sëy xoola mais rab bi lan lan la fi rab bi def moo tax rab ak a ñàkk maanu. dala koy gën a bëgg nag dala koy gën a bëgg. rab comme.